heure bi ah. démb la ñu convoqué woon El Malick la ñu ne la ko woo. Mhm. mi ngi ci garde à vue xaw ma ndax dana dem am danañ ko téye. Mhm. Eh, mandat dépôt mar détaillé voilà. Mhm. maire Kër Massar i tamit. wuy ji na. Euh, moom tamit euh, ci ay wax. Euh, dañ koy boole rek ak ki nga xam ne mooy docteur Babacar moom tamit ak yi xew yëpp ci affaire yi. weddi na liñ ko waxal waaye ñu ngi koy toppee daal. ci li génn mi ngi suuf la mu doxatut YouTube bi doxatut. kii bi non yow kii ngay kiiyee moo tax. lan doxatul wifi ngay doxale wifi hmm? bee tax doxut daa coupé il faut nga wàccaat suuf nga baraasle ko fii nañ fi yëgali wifi ci kaw. doxul de. mi ngi dox sa connexion bi. taalal sa muy doxee yéen a ngi dox. normal wifi nga yor. non yoruma wifi. alaaji yow loolu. Ah. waxal ba <laughs> yoroo wifi. <laughs> sa wifi jeex. sa courant coupé. <laughs> sama gars yi de. dafa nag may rey alal soo fi fee jeex en tout cas daal ñu ngi dégg ala ah. léegi Assane ah. euh, ñu dem ci mbiru El Malick mm. ak meeru Kër Massar bi jàpp nañ ko mm. maanaam wolu nañ ko mm. docteur ñaa maa ngi ko doon wax de Babacar ñaa am na ñu ko waxal ci journal yi weddi na ko waaye ñu ngi koy toppee ci li génnagul ci enquête bi daal mooy dafa sàggane nit koo xam dañ ko indi ci moom ba mu jaaree fa faatu mooy kii faatu ca Medina. ay mbokkam ñoo porté plainte nee nañu ñu ngi saytu mbiru Ousmane Sonko ak na nekkee ak na mu fa duggee waaw am na solo mais daa mel ne di hélas wax nag voilà. non mi ngi mi ngi dem non non na ngi dem mm, sa bos a jeex. non sama bos <laughs> mi ngi sa bos jeexoon. <laughs> waaw jërëjëf son yi moom. Mm. Euh, li nga wax noonu am na solo mais El mm. li ko dal euh, sama kalaas gi ñoo ko yóbbee si benn côté. sa classe gi ci naka. ñoo ne quand El Malick mii dafa war a wax El Malick dafa war a génn mi ngi nii du ñam garanaat demut police def nangam nangam <laughs> xam nga. voilà courant bi ñëwaat na xam nga. Mm-hmm. courant bee ñëwaat xam naa ñee dañ ñoo seetaan coupé ko euh, biñ ko coupé it. <laughs> ñu ne nañ leen ko jox nañ leen ko joxaat. ah dañu ruube dañuy seetaan. ah ñoo xam ne léegi fii bu ah, baax. waaw ñu indiwaat ñu ne nañ ko joxaat amul ngeen ñu ko joxaatee jël ngeen ñu ko joxul ñu jël ñun moom naba maayeen fi mu nii naba maayeen si suñu wàllu courant voilà. na ba maayam. Ah, léegi daal bu ñu ah, ah, gis ñuy wax dañoo gis ñuy wax ñu <laughs> dañ ko coupé bii dig digal bi dañ ko nag. waaw El Malick li ma li ma. El Malick ko daan ñun ñoo ko yóbbee. ndax El Malick bu extraordinaire la daan teg. Hmm. naan la. stratégie bu extraordinaire moom la daan teg. moo tax gars yi naan ko waaw El Malick dangaa war a génn ñii naan El nii El Malick nii waa bitim réew gis naa sax gars yi di ko saaga naan nii daa bëgg lu yomb daa def nii ah El Malick it xañ na def dara gars yi ni ko kaay nag téye ko te xamuñu ni fi mu nekk nii. porte sans retour la woolo bi. porte mm. sans retour la. Mm. woolu mm. porte sans retour la. ku dem doo dellu si foo jëm. waaw mais euh, enquête mën nañ la enquête xam ni defoo ñu bàyyi la nga def. kan kan kan nga gisagul ñu woo ko enquête ko ni ko demal. Euh, kii euh, nag borom sept milliards ya hmm. waxuma ñooñu de. kii nu mu tuddati. oui wax fii ci réew mi kooku kii ah, mooy kii la bëgg a. Adjibou Soumaré ñëw na enquête ko bi ñu xamee ni kii ne dem na yoonam. ma waxuma foofu nekk ci sur contrôle. nam demee voilà nam demee noonu mais porte sans retour la. Hmm. fii moom ku dem. Hmm. tey ji mën nañ laa teg yoo xamante ni boo génn boo fa demee boo ragalee hmm. mën nga daal di jébbul hmm. ndax fii ñu lay fanaanal sa karaw yi sedd guyu lañ lay fanaanal hmm. bàyyi la si bit amut autorité nga amut doo autorité fee la ngay fanaan sa karaw doo lal dara nga tëdd fa ñu lay man manee ba bañ lay rek loolu nag am na ñoo xamante ni buñ buñ ko ñamee bu ñu ne laa demal waaye bu nàngamee boo génnee pare nga ci mbir mi pare nga ci kombaa bi kon nag ñooy nañ bàyyi kenn ku nekk sa stratégie xeex nga xeex ko te di waxaat président Macky Sall ñi mi woolu ak njabootam lañ duñ njabootuk Sonko. Sonko ak njabootam a nga ak moom. El Malick ak docteur beeg ñëpp njabootu président Macky Sall lañ. sunu kilifa. mooy sunu président. mais bu jàppee ni ñii ñuy woolu wala ñii ñuy tëj ci kaso bi Ousmane Sonko leen moom wala Ousmane Sonko lañu àndal. Mhm. ndax na boppam. Mhm. na jàpp ni njaboot gi kët sama njaboot lañ. naa leen gën a gën a orienté naa leen gën a teg si ay conditions yu baax naa gën a jege ak ñoom naa gën a waxtaan ak ñoom ba bu fekkee dafa am lu dox sama diggante ñoom lu dul noonu noonu la daal di dikkaat. Mhm. loolu moo gën jàpp tëj ci kaso bi lu koy indi ay noon kese la ndax léeg-léeg mu tëj ba tëj soppeem. Mhm. day tëj ba tëj soppeem wala mu tëj ba tëj koo xamante ni même bu soppeet waa juróom soppeem la. ay waa juróom yëpp président Macky Sall lañu àndal. menn moom moo si ànd ñu jàpp ko tëj si condition yoo xam ne waa jur yooyu mën nañoo boycott. Mhm. kon bala ñoo tëjati nit ni ma ko waxee nañ ko xool bu baax a baax a baax a baax. yow mi nga xam yaa war a signé pour ñu defeere ko boo demee bay signé na nga xool bu baax li ngay signé ndax lii nga waatoon ndax li jar na ko ndax ndax ndax li mu laaj def nga ko. d'accord loolu lu am solo la si. mbiru docteur bi loo ciy wax Babacar. mi hmm? ñi dañ ko toppee sàggane nit ko uh, jagadi woon ba fa jaaree faatu. waaw bu ñu ko defoon kii dañ bu ñu fekkoon njëkkee nañ ko si yeneen hôpital ndax léeg nga jël fi ab malade indi CTO gii ñun la fees. Mhm. nga dem daan teg ñu ni fees na nga dem faam ñu ni fees na ngay bindeeluwaat mu dee. Mhm. nga dëppaat ni leen dee na ñu ne indi néew bi bindal la ngay fay pour mu jotaat si néew bi. Ah. te mosuñoo dégg lii. te moom ne leen leer ni privé la yor. Mhm. li ñu yor n'est-ce pas moo ko moom. waaw bi moomu ko. Mhm. bu ko neexoon tey jii mu ñëw mu ni kii duma ko jël. Ah, mais su boobaa nag dafa dafa privé la yor privé non Assane ci wàllu santé mu amoo droit di seetaan kenn ah kay non boo yoree sa privé bu ñëwee dañu ne ko ndax demal sa hôpital yi mag boo waatee boo waatee Assane non non même bu dee sa noonu la bu feebaree da nga ko war a faj sony bu nit ki bu ñëwee du affaire noonu ak yooyu bu la neexee nga xool ko séetawoo lan moo tax ñu lay xool ni la dañ lay jàllale demal hôpital sàngam hmm. hôpital bii ma demoon fii nii nit ku doon matu dafa ñëw ñu xool ko ni ko ñun duñ la demal beneen hôpital si la ñëw ba egsi si hôpital boobu bu ñëwee ñu opéré ko d'accord est-ce que bu fekkoon jël na risque def sa dara bu dee duñ ne moo ko rey bu ko xoolee xam ne kiikat bu dee fii dañ naan kii kat daa jóge si Bamba Fall mu xam ne Bamba ñoom foofu la mu ñëw mu rey mhm. est-ce que du loolu la doon daw tax mu ne nañ ko jàllale si beneen hôpital loolu loi bi moo la may ab médecin ab ab ab malaat bu ñëwee boo ko mënta faj nga jàllale ko ci ku ko mën a faj bu sab lal feesee nga jàllale ko ci lalam feesul ayca boo ko mënta jël nga jàllale ko ci beneen hôpital loolu lu waabee ko mayee euh, jërëjëf Baye Assane Messere leneen la waaye du lii ayca jërëjëf Baye Assane Messere kon euh, mbokk mi ngi noonu sànq courant bi moo coupé woon direct bi di tax mu dem ñëwaat courant bi moo coupé woon le temps que groupe bi di déclenché moo tax mbiri am benn euh, coupure Assane Alaaji waaw arrestation yi bari na <clears throat> garde à vue mi ngi commencé mais yi mm. nga ñàmba saale ci Babacar Niaye tamit tontu na ci li ñu ko waxal démb waaw arrestation yi de fi mu toll nii dama seetaat démb maa ngi seetaat euh, kii duutale bi booy boobu waaye maa la koy envoyé sax kii euh, lëx ah, mu ne lii kat comme ab lido ah. <laughs> ku génn ñu jàpp la <laughs> amul ome waaw maanaam di euh, yëf yi demee mhm. xam nga boo seetee prison ba fa am lu muy jariñ mhm. loo xamante ni lu baax la pour ñenn ñi. Mm-hmm. am na ñu bari ñoo xam ne leen dong moo tax ñuy jubal. Mm-hmm. du ragal yàlla du lenn waaye ragal prison moo tax ñuy jubal. Mm-hmm. te am na nu jàpp di bare prison day dem ba dootu doonati dara parce que mythe bi day dañ. parce que mythe bi bu dañee rek am na ñu bari ñoo xamante ni. lañ doon bañ a tee def mën nañu def sax lu gën a yées wala lu gën a garaaw li nga xamante ni moom lañ def parce que dañuy dem ba dootuñu ko ragal. Mhm. parce que bu ma gisee ay nit ñoo xamante ni bii. Mhm. nga gis ni ñoom ci seen jëmmi bopp mosoo xalaat ni yu mel nii danañ leen ci jàpp sax pour maanaam nga gis ñoo xamante ni dañ leen di jàpp jàpp yoo xamante ni bii doo comprendre ban façon jàpp la. Mhm. te ba noppi nag mu amaat leneen loo xam ne bi son yi bu moom moo ci ne mooy muy que ni ñi nga xamante ni bi tey ñoom lañuy jàpp nii di leen dugal ci kaso yi hmm. nombre bi bari na bari boo xamante ni bi tey am na booy yu bari yoo xamante ni buñ génnee foofu nu mu demee nu yëf yi mel nu yëf yi kii am na ci booy yoo xam ne fi mu toll nii ñoom dañuy am sax envie ah, pour bokk ca ñooñu parce dañu war a xam ni dañu toll ci réew moo xam ni nit dina def lu ne sax pour siiw. Hmm. pour fësal ay mbiram. léegi nag dañoo toll ci période boo xamante ni bii jàpp la ci politique yi nga génn dafa am lu muy defaat ci yow. Hmm. Hmm. maanaam guerrier. Ah. goo xamante ni gii dañ naan diw oh non sa waay teereegul non sa waay dafa sonn ci affaire yi day ñam ma ngi ñappe ci affaire yi sa waay la ci mbir yi comprendre nga. léegi yow. yaa ngi defee ne yaa ngi def dara mais fekk ne parents yi am na ñoo xam ne sax léegi yaa ngi leen ñu ñu ngi wut garaat boobu pour nga tappal leen ko. Mm-hmm. waaw man dama xeexal Ousmane Sonko ba ñu tëj ma man dama def lii ba ñu comprendre nga man dama bëgg réew mi yow booy defoo jeel. Mm-hmm. parents yi gis nga ay ay wëyu dañuy toog. Mm-hmm. di wax ci ay kii man xoolal dama def ni am na wëyu yoo xam ne dañuy dañuy bàkku. Mm. ci maa la ëpp ay dagg-dagg. waaw waaw cicatrice waaw yëkkati kii bi na la xoolal yii. waaw si est nga. wala def naa lii def naa laa léegi nag bu ñu demee nag ba nga xamante ni bi dugal nañ mbir mi foofu. Mm-hmm. ba nit ñi joxatuñu benn gëdd bi li nga xamante ni bi mooy dem prison nga xamante ni bi nit ñi dañ naan parce que fi mu toll nit ñaa ngi wax naan euh, kuy gor. di nga fa dugg parce que fi mu toll nii dañu bëgg a jël jël nit ñi jàpp leen jàmm képp kuy bañkat rek di ko dugg prison. Mm-hmm. léegi ñi loolu ci bopp nit ñi. Mm-hmm. léegi nit ñi est-ce que dina du ñu yàq tamit li nga xam ni mooy li nga xam ni mooy li prison war a jariñ dëgg mhm. parce que tey am na loo xam ne bu ñu ko toppee mën nañ dem ba yàq ko te loolu mhm. boo ko yàqee ci am réew mhm. maanaam loo desee léegi pour di dissuader nit ñi ba di leen tiital pour defar boo bëggee defar sa réew léegi dew nu fooy jaar pour defar ko parce que tamit pour defar réew prison daf cee bokk si pour nga defar ay nit mais bu fekkee ne nit ñi nga fay dugal dañu jàpp ni ñii kat ay liggéeykat lañ nit ñu bëgg seen réew lañ nit ñu sopp seen réew rek moo tax. nga jàpp leen di leen dugal fii. finalement sens bi dëgg dëgg dëgg mën nga dem ba sensu prison dootu dootu dootu ko kii quoi. donc loolu mooy li nga xamante ni bii. Euh, moo ci ne nga ñambaas ci Babacar Niang. waaw man bon li ma dégg dégg naa ni nekkul ni moom moo wax ni du ko jël. Mhm. mais defe naa dañoo def ay kii wax. Mhm. ñoo ñoom nee na ñoom ñoo yenn waat seen malaat yóbbu. Mhm. donc comme par exemple peut-être am na loo xam ni wax nañ ko. boo ñu ne ñoom ñoo yóbbu seen kii léegi nag pour quelle raison léegi bu fekkee ne yëf yi noonu la demee lan moo tax léegi ñun di ko ñëw di ko taqal parce que dañ ko bëgg a taqal comme si non assistance à une personne en danger. Mhm. parce que nit ki bu nekkee ci kii ak yooyu euh, d'abord li nga war a njëkk a teg mooy tegal mbirum kii fële te jublu ci li nga xam ni mooy mbir mi faj ko. Mhm. foofu mooy fi nga xam ni fa lañ ko bëgg a waaye mais il paraît que ñoom nee nañ yëf yi demeewut noonu. kon mhm. donc wax la ak wax. Mhm. kon defe naa ni ñoom dinañ indi firnde yuy wane ni. Mhm. nii la yëf yi demee. Mhm. te defe naa ni bon xanaa hôpital léegi war na am sax xanaa ay caméra ak yooyu. ñu yëf yi di demee nga xamante ni bu ko laajee. di ko génne si parce que loolu moom lu war a am la.